samatu lam su waxoon benn xarfa asamaan ak suuf jaxasoo comme ñetti xeetu xam-xam la ilmu shariati muy xam-xamu diine bi bu feeñ ilmul xaqiqati muy xam-xamu diine bi bu ne bu di xabaaru baatin ilmul xayb muy diggante yàlla ak rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te ci la tariqa bi nekk ci ilmul xaqiqati la tariqa bi nekk mu jox ko ko mu jox ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam guddiri ñaan comme tariqatul qadiriya bi nga xamante ni moom ngay laaj mooy njëkk ci tariqa yi moo mag ci tariqa yi euh, te tariqa yëpp baax nañu wante bii moo ci gënal yàlla ndax su ko beneen gënaloon mu ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam wante yëpp bu gën baax nañu wante ci yëpp gën nañu mais bu ci gën bu ci gën a baax bu ci mag njëkk ci moom la jox rasulullah sallallahu alayhi wasallam muy tariqatul qadiriyati muy tariqa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci yàlla la jógee mu jox ko jibril mu jox ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam muy muy tariqatul qadiriya donc dafa juddu ànd buniyati alal kitab wa sunna ndax moom yaa ngi laaj ba xam ci kitab ak sunna ndax moom mu ngi jóge ci yàlla mu jox ko jibril mu jox ko rasulillah sallallahu alayhi wasallam muy tariqa rasulillah sallallahu alayhi wasallam di tariqa saxaabatu rasulillahi radwanullahi alayhim di tariqatu taabiin ñu topp saxaaba saxaaba yi taabiina taabiin ñu topp ñu topp ñooñu di tariqatu akabiri awliya illahi di tariqa magu waliyu yàlla yi eh, di tariqa eh, ala beyta rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waa kër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam eh, mooy umu ci wàllu tasawuf nee na nu mooy umu turuq yi muy ndeyu tariqa yi di seen bàyyi di seen maam képp koo gis wali yu yàlla yu mag yi fii la ñu jaar ba yàlla faj seen aajo ñu door ba ber seen tariqa te am na ñaari xaasiya yu nekk ci moom yu doy waar mooy taqni an jamii l awraad werduha yaqni an jamii l awraad wala yaqni anhu werd werdam dina wutu werd yëpp dina remplacer werd yëpp te benn werd du ko wutu ñaareelu xaasiyaam ñaareelu jagleem particularité am saaxibuhu la yamutu illa wa ala saaxibuha la yamutu illa wa ala xusni xatimati walaw faala ma faal boroomam du dee te d'accordul ak yàlla wa kafa biha maziyatan loolu doy na ci ngëneel chartam alquran ndax may laaj ba xam buniya alal kitabi wa sunnati chartam ci alquran la mooy chartam bu ak sunna yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak saxaawul yëdd mooy tab générosité bëdru na daa def lu rafet foo toll képp fu di fàtte sa bopp ci ñeewteef alhamdulilah nangu tegoo nattu euh, safxu an hazaaratil ixwaan jéggile njuumte ñeneen yi lépp sa suufiya xusnul ashira rafet dëkkandoor ak koo too koo mën foo mënti nekk ak koo mënti nekkal nga rafetal ak moom dëkkandoor doo ko lor ci dara lépp sa suufiya solo solo tasawuf muy fukki chart alquran sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam salamata sudur xool bu laab saxaawul yedd tab benn nun na daa def lu rafet foo toll képp fa jëfaat tey sa bopp ci ñaawteef alhamdulilah nangu tegoo nattu xusnul ashira لبس الصوفية من القرآن السنة سلامة الصدور سخاء اليد بذل النداء كف الجفاء حمل الأذى صفحة نظرة الإخوان حسن العشيرة لبس الصوفية بم يفكي شرطه طريقة به ما يصلوا صلوا التصوف آه آه لبس الصوفية حسن العشيرة رفع الدكندور أكيم ولا ما يفكي شرطه طريقة به ما يشرطم القران السنه سلامه الصدور سخاء اليد بذل النداء كف الجفاء حمل الاذى صفحه نظره الاخوان حسن العشر لبس الصوفيه yooyu mooy fukki charte tariqa foofu dafa bari ay shérif loolu lan lan mooy shérif parce que dama bëgg ñu tënk lépp ci biir shérif mooy lan shérif d'abord avant avant l'islam mu ñëw mooy ci làkku arab mooy honneur sharaf mooy honneur sharaf mooy honneur lawqatan mooy honneur quelqu'un qui est honorable te avant euh, sharafi kaamili sharaf bu ñuy wax ala bayta rasulillah sallallahu alayhi wa sallam amoon na six kër ci Quraysh ay ashraaf lañu ay famille honorable lañu ci Quraysh ndax ñu ñu nekk juróomi juróom-benn ala Jaafar ala Aqil ala Abbas ala ala Aqil ala Jaafar ala Abbas ala Bayt amoon na juróom-benn kër ci këru famille yu honorable këru famille ashraaf ci Quraysh wa anta sharafi kaamil sharaf bu ñuy wax ak ahla bayt rasulillahi sallallahu alayhi wasallam boobu moo jafe léegi bëri na ku jug mu ni man shérif la il est honorable mais taxul mu nekk shérif bu ñuy wax sharafi kaamil sharaf ak mu bokk ci ahlul bayt bëri na léegi ku jug mu ni man euh, euh, sëtu yonent la dëgg la mu ne nekk sëtu yonent ci aadama ndax kullukum min aadama wa aadama min turab wa nekk sëtam mu nekk sëtam par contre da nga dégg sax nit yi nii sëtu yonent amul yonent yàlla Muhammad sallallahu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am amul yonent seen diggante sori na lool wa kaana bayna daalika quruunan kasiira la yàlla wax mm-hmm. yonent seen diggante ay siècle yu bëri charaf mm-hmm. yi kaamili charaf euh, pour nit mu nekk ko da ngay nekk sëtu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci deret nga génn ko ci deret soo ko nekkee ci deret nga nekk sëtam ci ragal yàlla ci taqwallah al azim nga nekkaat it sëtam ci diine léegi sharaf yi kaamili sharaf nga dugg ci sharaf gu mat sëkk mu ñuy wax kaamili sharaf nga bokk ci ahlu bayt rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yu yàlla tudd ci alquran qul la asalukum ajran qul la asalukum alayhi ajran illa almawaddata fi alqurba mm-hmm. ak innama yuridu llahu li yudhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahirakum tathira loolu mooy sharaf yi kaamili sharaf mm-hmm. parfois da nga dégg nit mu judd bisu àjjuma ni shérif la ndax parfois bëri na euh, nit yi nga xamante ni dinañu judd àjjuma ñu santale leen ci yenn xeet yi ay dara da nga gis yenn nit ñu ñu ñu euh, sant ci kër diine yu mag la ñuy bokk ñu baax lañu ay nitu yàlla doomu nitu yàlla wante loolu taxul nit mu nekk shérif shérif mhm. mhm. da nga gis yenn nit yi sax ñu wax ni ku lu tax yun shérif am ñu ni képp ko ragal yàlla képp ku ragal yàlla chérif la c'est vrai il est honorable c'est vrai ci honneur mooy sharaf sharafu honneur il est honorable ku ragal yàlla il est honorable lahu sharafun azim ante yaqsiru an sharafi kamili sharaf mais du nekk sharafi kamili sharaf du nekk ci ahli bayt rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax chérif chartam mooy nekk doomu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci direct ak diine ak jëkkook melokaan ñaareel bi sant bi dafay nekk ay dara ndax ay dara boobu lu ko indi mooy aliyin karamallahu wajahu ndax seen maam mooy fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak aliyin karamallahu wajahu te aliyin karamallahu wajahu bokkoon na ci turam bu ñu ko doon wooyee euh, doon na ko wooyee ay dara ay dara ay dara gaynde téere yi ñu ngi def ci ñoom azu yenn saa yi ñu joxe ko référence ñu def ci moom euh, ñu joxe ko référence ñu ni wa bir ruku'i wa sujudi haydara mhm. ci néew moom ju jullee na néew ci roko ak sujud ngir bëri xam-xam ndax ali rasulullah sallallahu ma wasallam nee na man maay dëkk xam-xam te ali mooy buntu rasulullah sallallahu alayhi wasallam parce que jullee benn ci bàyyam yi juróom-ñaar fukki raka eh, juróom-ñaar fukki takbira mu mm-hmm. na néew ci roko ak sujud téere yi yenn saa yi suñu joxe référence ñu ne yow bi roko wa sujud Haydara yenn saa yi mu ni ana alladi samatni ummi Haydara moom ak marhab mm-hmm. yaa ngi gis Haydara boobu mooy santu shérif yi yeneen sant boo dee Haydara mooy signifié gaynde gaynde wante su fekkee dañuy dañuy remonté mbir bi fu gën a sori wati ohum li abaihim la yàlla wax